dem mais mën nga bañ a yërëm nit ñi mais bu nit ñi di am ñu ñu yërëm mais bàyyi leen au moins ñoom ñu yërëm leen xam gis nañ ne bu laajte xaalis jotee ñoom xam nañ niñ koy defee pour def ko feneen ñun ñu ne dañoo bëgg a def yemu ñu ci téléthon dañ ko lancé ba pare gàddu ay vivre li ñu am as néew ne dañ koy yóbbu ñu ne du ci dal waa xel nangu na ñu téye Bougane Gueye Dany bàyyi jéem na bëggum ak Anta Babacar Ngom xel nangu na loolu xel est-ce que xel nangu na loolu Et loolu nous ñu au départ attention c'est day bari de ils nous ont provoqués. et c'était la meilleure manière de donner une dimension politique à ce dossier De mobiliser le parti au pouvoir qui a autre chose à faire mais de venir devant le tribunal perturber les gens jusqu'à mettre la pression sur le procureur parce que le procureur il pas woon a def la relax à Bougan Gaïdade, parce que Gaïa a mettre la pression ci lui. C'est ça la stricte vérité. Nous sommes en face d'un pouvoir qui, a, est prêt à répéter les erreurs du passé. Concevoir le pouvoir comme un instrument d'enrichissement illicite. Parce qu'on parlait, le président, le premier ministre n'a aucune prérogative. Ousmane Zongo, de yow justice de yow yaay justice Donté dañ lay message pour nga wax ndax dañuy jappam duñu nous wayé scandale li ñu wax muy euh euh Azer du yow Ousmane Sonko du yow yaay wax ndax diw set na wala setul laisse cette prérogative à la justice xam nga bu baax nak ñi wax ak yow xam nga ko bu baaxa baaxa baax lolu xam nga ko bu baaxa baaxa baaxa baax je vais pas en dire plus donc maa ngi wax ne Sénégal ñun ñoo ko ce pays les gens ont ont fait beaucoup de sacrifices je la loi d'amnistie les morts vous écoutent les morts vous entendent Nous moytu par bi te de dëgg te tax nañu moytu vous bi te xam nga la commencer moy nga ne diw buy wax bu len ko mais de ma rek waye nañu fexé ba diw bu ce pays-là, c'est le terroir de nos, de nos, de, de, terroir de cœur et de sang. amuñu feneen fudul fii du ñu bàyyi ngeen ko yàq sénégalais yi faluñu l'aider pour loolu D'ailleurs, leen a fal pour ngeen def régler la question de l'immigration clandestine loolu monte à ñun ñu bëgg a dem assemblée nationale pour joyanti li ngeen bëgg a def te mënu leen ko wane seen télé wax naa ko keroog bi ñu leen falee at weeru njëkk yi déggu leen gaal génn Sénégal dem fenn waaye ba démb gis naa communiqué démb xaw barki démb gis naa communiqué marine nationale bu ñu ñuy arraisonné ay nit yoo xamante ni ña ngay bëggatee dem mais nit ñaa ngi dem parce que yaakaar bi ñu amoon amatul pour la première fois dans l'histoire du Sénégal ngeen dégg déguerpissement te déggu leen recasement sénégalais yi lan lañ doon wax marchand ambulant yi sama mbokk yi ma leen di nuyu liñ doon wax mooy lan mooy fi ñuy recaser gënalu ñu ñëw leen ñu waxtaan pour la première fois dégg ngeen déguerpissement mais déggu leen recasement fan la ñuy recaser fi mu ne ci biir géej gi xalé yaa dem dit, c'est factuel kenn mënu ko wetti té si seen doomi di faatu ñom xam nañ wax bo suñu dëkk tay di mbuur tay am ñu seen doom ndax la même chose waxuma nak ñu ca Maroc ña nga Maroc ñu leen ci prison yi waxuma nak ña nek Espagne waxuma ñi nek ak ak Nous lool bu dul yaakar bu tass lan bu le président de la république est-ce que vous savez lu mu def bi mu euh, Bakel les présidents président conseil départemental yi ànd dit maire ne des nga ils sont très en colère parce que dane leen loolu du ko comme léegi am ba may wut nguur gi aw comme dit euh, avec une bonne euh, machine à café ils ci kaw survolé euh, ñu may toppatoo ci kaw su ma paree delluwaat sama dëkk delluwaat da Ndakaaru Njaay c'est ça qu'il a fait c'est inadmissible au même moment il y avait aussi une danse du scalp au niveau de Dakar Arena c'est inadmissible donc entre Bakel ak Tambacounda la fa xewoon ñaaw na trop Bougane Gueye ni démb heure bi à pareil moment ci la ñuy tàggatoo ak moom la tête de liste di ko nettali moom bañ ko indee Tamba

moy di santat bu baax sénégalais yi yi nek ci biir réew mi ak ci bitim réew di wax ne li doon bañ démb di dànkaaf ñu naan du am ñuy dànkaaf ñu naan du am ñuy dànkaafu ñu naan du am tay ji même chose la ñu gisaat ñi am information yépp xam nañ li may wax loolu moo tax ñun ñu am obligation wax ak sénégalais yi ne leen lii xeñ neexut jegewu ko jegewu ko Et le, gouvernement doit arrêter d'utiliser les moyens de l'État, doit arrêter d'utiliser la justice, doit arrêter d'utiliser les forces de l'ordre et de sécurité. dans tout ça. Je raconte une anecdote. démb bi de Tamba toog mais nous ñi faire toog foofu ci biir tribunal bi la def mais du ñu ay du ay Samba Boy du Nous, ay va nu mais ñu toog ci biir tribunal bi tranquillement comme parce que am na ñeneen ñu fa fekk ñu mais les forces de défense et de sécurité ñëw ne jot nañu ordre né nañ ngeen génn ci mais tout de même ñi ñëwoon waxuma sax non seulement waxuma sax ay ay ay ay anciens parlementaires ñom ñoo ñëwoon ñoo xamanté dañuy taxawal pour di di di sax pour ñu changer les les conditions de ces forces de défense et de sécurité mais quand même nous étions avec le maire de la capitale du Sénégal c'est pas rien mais Nous, jël ñu daal di ñuy ci biti sànni ñu ci et nous avons le maire a pris le soin de le dire est-ce que y di assurer son sécurité ci suñu parce que nous sommes responsables. responsable donc vraiment ce que nous avons partagé partager appeler aussi à la mobilisation générale de tous les sénégalais dit dit, ne waa ji dafa ne quand ils sont venus chercher les musulmans je n'étais pas musulman sama yoon nekku ci woon ma toog ba ja ma ne sama yoon nekku ci ba ci yàgg ñu ñëw chercher les chrétiens sama m'a nekku ci mané ne naa toog ma chrétien ñu ñëw seet si les juifs ma ne sama yoon nekku ci du ma juif ouais biñ may jël si man chrétien nekkatu fi musulman nekkatu fi juif nekku fi pour défendre donc faisons très attention képp ku wuteeg ñoom kaddu dinañ la bëgg a faagaagal te encore une fois fi may les moyens ONAS dafa wara leer azer dafa wara leer Cheikh Oumar Diagne lim wax kilifa rew mi ken musu ko wax nit continuer tok ca balé ba ñi ñi fi ñi fi joggé won dañ doon wax ne dañu tek coup ci dossier waaye nak ma ngi yëgal sénégalais ñi dañu tok ci ay dossier xam nga ñi coup lañ ci tegoon xam nga coup sax di nga ko mëna sét ñi dañu décider tok ci ay dossier té lolu on ne l'acceptera pas Donc, Sénégalaises et Sénégalais, faites confiance à cette belle coalition de Sàmm Sa Kàddu insha taala diggante ngor ak jom lañu bëgg am ak yéen insha taala duñu nek luddul des députés du Sénégal insha allahu taala dinañ dem gëna a contrôler juróom-ñetti milliards yi ñu yobbu yóbbu nañ ko fële te ñun ñu commencé woon sax suñu contrôle de l'action de l'exécutif. ñu ne ñu du ngeen ko fi défé kon bés bu ñu joxee mandat yóbbu ñu assemblée nationale ci lay gën a neex dinañu gën a joyanti li nga xamante ni lool